ci bokkul ci mboolem lu di bàkkaar nga jéggal nu rabbana ay yàllaahu yaa qaxaaru yaa jàpp lépp not dañuy ñaan nga not mbas mi ba jeexal ko rabbana ay yàllaahu yaa mujjibu jaam ñépp ñoo ci barkeb sa tur jeexalal mbas mi rabbana ayallaahu yaa xawiyu yow buur bi kàttanu rafaatal nu ak kàttan ñu daan mbas mi rabbana sa jaam ñeppaan ndëkkii te kum jaaxle jàqulul talompañ di sàkkuy ñaan nga jéggal nu rabbana damay soññ waa réew mi ñu jug farlu faw fekk tawat ji ñëw dooleem la dendi àddinam korona la ñëpp yi wax amul kenn kuy mindeef te jàqu ci boole tiit ci biir dëngi àddina ba tax maa ngi woo mboolem ku doon doomi mi tey di leen soññu ñun ñëpp xeex mbas mi rabbana ba maa ngi woo mboolem ku doon doomi mi tey di leen ngir ñun ñëpp jeex mbas mi woote na jëkk mooy pastiifu fikk sell tey setal sa jëm sa lépp ak fépp moo war te na raxas say loxo kub saabu toqal ci yit sewel jëlal alkosin raayoo viris faatu na te ngeen fonk ay maska dalay aar di aar keneen di moytu yu nuyoo nan jëf ndigal yaa ngi yell na te ngeen fonk ay maska dalay aar di aar keneen di moytu yi nuyoo nan jëf ndigal yaa ngi yàlla nan dañuy moytu ay mboolo ki xew ngénte mbaate ciit dëjëg lépp luy tax mbas mi sax daw ko jaadu na sëqat obbaleeg tis li beeg see nga def ci ñu lay wan na ngeen teewlu ndigal yaa ngi teewlu na te gàttal suñuy tànkit lu ñuy dox na am njariñ bu sottee ñu ñëw toogaat suñuy daara jaadu na balaa janta solooy dox nga dem dox ko gaaw te ñëw sa biir kër te moytu tooñ ndigal yaa ngi dégg na ku yewoo ci biir réew mi dégam réew mi ñor na la wuyul woote bii ngir daane mbas mii de jaadu na ma jug nag te layyil mboole kuy doomi réew mi tey ku yewoo ci biir réew mi li ngay dund metti na ma jug nag talayil mboole kuy doomi réew mi tey ku yewoo ci biir réew mi li ngay dund metti na ku daa génne ñaar téeméer ma nul génne xaaj ba tey te lépp ak soloy mbas mi njaboot gum fi sonn na ku daa génne ñaar téeméer mënul génne xaaj ba tey te lépp ak soloy mbas mi njaboot gum fi sonn naa moo tax maa ngi def appel mu njiitu réew mi tey te mooy excellence moo xam ni mbir de metti na ndaxam cant war naa jib ñu jagleel ko excellence ci bi mu jub engagé ngir daane corona tukkeetul te da bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin ashrafil anbiyaai wal mursalin sayyiduna wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbi dawi ridwani wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen rajo xasida online Touba Monde bi delsi na ci émission bu mu leen defal ci waxtu wi ci studio Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ci Milan di ñaanal ñëpp tawfiix ak taysiir di ziyaare ñëpp di balu ñëpp ak di jiital ci ziyaare bi diñ ko waxe rek alxalifatul am di tariqa al muridiya waaye ziyaare tim Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa maam Cheikh Ibrahim Fall ak mbooleem xalifa yi ak mbooleem sëriñ si niñ koy waxee rek ci émission yëpp ne mooy ñëpp rek ci yoonu jub lañ nekk kon seen émission soññeeg ziyaara ngeen ci ànd ak Mor Sylla Taif ànd ceeg sëriñ Modou mbay Thiam Baye Fall waaye ànd ceeg tim directeur bi nga xam ne wax dëgg yàlla noppaluwut suba ngoon sëriñ Ibrahima Ndiaye xalil directeur programme bi waaye auditeurs yi ak yi di wax amoon nañ leen kon émission bi tey delsiwaat na ànd ak mbégte mu metti lool ci li nga xam ne moo wër jamono ji waaye nag ci biir émission bi lépp incha allahu taala dañuy dalal xel yi ba ñëpp delsiwaat incha allahu taala kon liñ bëgg a waxtaane tey mbokk yi mooy ab dogal gëm dogal loolu lañ bëgg a waxtaane ñaan yàlla mu leeral suñu xel ak suñu xol ba liñ ci yaakaar mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaye niñ koy ne li ñu ci jublu mooy yool bu mag bi nga xam ne sëriñ Touba diggee na ko ci te mooy képp goo xam ne yaa ngi laabiire nit ñu baax ñi moo ëpp ab yool nga dem di xeex ci yéefar ya ba daanu ci xare ba su man nasihatu li ahlil baari xayrun min al jihaadi fil kuffaari loolu sëriñ Touba moo ko bind waaye tim la ca des ti mooy mu am lu ñu ragal te loolu tim sëriñ tubaa moo ko bind mu wax ne fa kullu man bi ilmihi xat baxila fa innahu xabla al mamaati yubtala képp koo xam ni am nga xam-xam ba pare naye ko bala ngaa faatu dana la teg ay nattu dana la teg ay balaa loolu nag buñ koy wax rek mooy ne ñun amuñu xam-xam waaye buñu bu ñu déggee lu baax wala buñ déggee ab xam-xam te nit lu wuñ ko nee nañ xam-xam niñ koy waxe yëmut ci foofu dañ koy ba yaatal ko ba ci ñi nga xam ne sax suñ mbokk yi nga xam ne ay jaaykat lañ ku xam ne marché sàngam ku fa dem jaay wala réew sàngam baax na te demoo fa naye nga xam-xam ba ci mbas mi nga xam ne am na képp koo xam ne nii xam nga ne lii baaxut ba pare waxoo ko naye nga xam-xam kon loolu rek moom lañ ci jublu ñaan yàlla mu ubbi suñu xel ubbi xoli nit ñi ba liñ ci yaakaar mooy liggéeyal Serigne Touba ñu ànd kook ñépp kon tey ñu bëgg a xam ngeen ne fi ni jamono metti na tiis yitim bari na wéradi yitim bari na waaye nag ñu delloo lépp ci suñu boroom ndax sëriñ tubaakat ci matlabu shifaa yi moo wax ne xamdan li munsili dana waddaa i wa munsili shifaa i waddawaa i bi mu sante yàlla moom sëriñ tubaa dane sant naa yàlla mi nga xam ne mooy wàcc jàngoro yi di wàcce gàllankoor yi waaye yàlla moomu tim nag mooy wàcce garab yi mooy wàcce saafara yi waaye Sëriñ Tuubaa yëmul ci loolu dane man amaral ibaada bi duaa i li yadfau bi anil balaay yàlla moomu kat nee na moo digal ci ñu koy ñaan ngir di ko fege ay balaa kon nañu ñaan bu baax waaye tey ñu bëgg a waxtaane gëm dogal xam ngeen dañuy commencé ci ki nga xam ne mooy abul bashar di yonent yàlla aadama alayhi salaam gis nga ndogal gu mett gi nga xam ne dal na ko ndax bi yàlla bindee rek aadama dafa wax seytaane iblis ne ko demal sujootal ko mu ne déedéet ndax man maa gën a ëpp nit maa ko ëpp ab dayoo ci suñu boroom ndax moom danga ko bind ci ban man nga bind ma ci sawara moom tim ni ko alxuraan waxe ne kaana minal muqarrabin dafa jege woon suñ borom lool moom iblis waaye kon li ko yàlla sant te nit a tax mu bañ moo tax natt boobu moom tim yàlla teg ko ci kawam seytaane moomu nag kon moo tax du sonn du tayeel saa bu xëyee mi ngi xëy ci lu yàqal doomu aadama ndax la nga xam ne doomu aadama yàqal noonu na ko moo tax saa bu xëyee ba ngoon mu ngi xëy ci lu yàqal nit bu demee ba jant bi soo wala ba tëdd jot mu ne tey moom jeex na waaye bu subaa ne xëy siwaat kon loolu tax alxuraan ne inna shaytaana lakum adduwun fattaxisuhu adduwa seenum noon mooy saytaane jàppe leen ko mooy seenum noon moom seytaane kon bu kenn yaakaar ne moo la bañ wala moo la noonu seytaan rek moo ci dugg moo bëgg a yàqal ñépp loolu tamhid la woon rek ab laytaan woon waaye li ñu bëgga a wax daan dëgg-dëgg rek mooy laytaay loolu pour yonent yàlla aadam mi nga xam ne mooy bàyyi ñëpp moom dogal bi ko dal gis nga mu metti lool xam ne yàlla da ko mujj génn ci ak nguuram mujj mu jaaxle tàggale ko soxnaam ñuy wërante ay ati at yu du jeex te gisantewuñ mu metti lool waaye nag bi mu demee ba tuub ci suñu borom tim suñu boroom jéggal nag ko kon yàlla moo ko wax ne uskun anta wa zawjikal janna wala taqraba hasi shajara kon ba mu ko moyee tim moo tax mujj na metti ci moom lool waaye mu nangu dogalu yàlla ba delloo siwaat tuubal suñ boroom yàlla jéggal ko kon dañ doon def tam tamhid ci sayidna ibra adama alayhi salaam kon ay gàttal nag ci gàttal rek la ñuy wax ab dogal lañu bëgg a waxtaan rek bu ko defee dañuy ñëw bu ci biir nag ñëw ci sëriñ Tuuba ci dogal boobu nga xam ne dana tax ñun tim suñu xel dal ñu gëm dogalu suñ borom bi subhaanahu wa taala dañuy ñëw ci yonent yàlla ibrahim ki nga xam ne moom ti mooy abul anbiya mooy bàyyi yonent yépp mooy seydna ibrahim alayhi salaam waaye gis nga ne moom tim yonent bu mag la woon yàlla nee na ku dëggu la ku baax la woon moom seydna ibrahim waaye gis nga ndogal googu ko dal nitam yi weddi ko ba ci baayam waaye gis nga doomam jooju tim di ismail ak nga xam ne yor nag njaboot lu yàgga yàgga yàgg munta am doom mu dem ba màggat lool lool lool lool waaye ñu jox ko soxna soo xam ni soxna su ndaw la mu am ca doom bu góor bu tudd Ismail alayhi salaam waaye gis nga ne ndogal bi mu ñëwee tim suñ boroom mu ne ko génnal nga dem ànd sa soxna su ndaw si ànd boobu metti lool Seydina Ibrahima bi mu demee ba genn xur da ko bàyyi waaye soxna si dem ba am jafe-jafe moom tim te yàlla dogal mu war a am doom muy lu metti lool waaye ndogalu yàlla tim bu ñëwee kenn mënu ci dara nga xam ne soxna soosu ñaari diggante montagne yooyu mu daan dem benn ba daa tudd Safa benn bi tudd Marwa bu demee ba ci kaw di wuti ndox parce mat dikkal na ko mu war a am doom te amul dara lu mën a laaboo ah yàlla lu rëy la mbokk yi ni ko Serigne Sambay di waxe nga xam ne bu demee ba ci kaw gisul dara waaye mi ngi tiid ne doomam jim mu bàyyi mbaa ak till wala dara du ko del uh, uh, ñëw ci ginnaawam mu daal di waññeekuwaat bu ñëwee gis doom ji jàllaat ca weneen wa muy marwatim du gis dara ba tax inna safa wal marwata min sha'airillah yàlla def ko coono boobu mu doon doj di daj di daw di dem ak a ñëw moo tax fépp képp koo xam ne da nga aji da nga daw safa ak marwa waaye dim danga gis ne ndox mu sedd moomu nga xam ne mooy ndox mu sell di zam-zam gis nga bi mu demee ba jaaxle ba nga xam ne dafa këdd rek doom ja këdde ca montagne ma rek ndox ma daa di sotti mu naan ko zëm-zëm naan ko dalal dalal gis nga dogal boobu waaye yonent yàlla ibrahim tim gis nga loola li muy metti metti lépp bi mu ñëwee tim yàlla ne ko na nga tabax kaaba gi alxuraan wax ne ko iz yarfa'u Ibrahima alxawaa'ida muy loo xam ne metti na lool ndax koo xam ne amoo benn matériel bi nga tabaxal kaaba yaakaar naa loolu tim jafe-jafe am na waaye jafe-jafe yi yëmul ci loolu la ca gën a mettiwaat mooy ku dem ba màggat musoo am takk ndeer yàlla mooy def loolu ñi ko amut yàlla na yàlla may leen ko te buñ ko amut fii di nee nañ ëllëg des na ci danañ am lu baree bari ci àjjana waaye doom bu ndaw bu góor musoo am benn doom nga am ko ne ba màggat yàlla xëy-xëy rek ne la rendil sa doom ji yaakaar naa loolu mbokk yi lu metti la lu metti la loo xam ne tim lu jara bàyyi xel la loolu yaakaar naa fi ni ku ko waxoon sa doom say doom ci saasi la ñuy dem police porte le plainte ah yow mi ko wax tamit dañ naan kii sax daa dof te sax la ca gën a doy waar mooy dafa wax rek doom ji ne ko dama gis ci ay nelaw yàlla ne ma naa la rendi yaakaar naa loolu kon lu jara bàyyi xel la mbokk yi te bu fekkoon ne sax danaan yàlla ma ko wax waaye ci ay nelaw dafa mel ni ku gént rek ñu ne ko rendil sa doom ji waaye doom ji dim ku gëm dogalu yàlla la mu ne ko yow sama baay defal li la yàlla digal danga ma fekk may aji muñ kon gis nga loolu tim liñ ci bëgg a jële rek mooy dogalu yàlla bu ñëwee ab jaam da koy nangu te mbas miñ lañ bëgg a waxtaane ndax actualité la nit ñi xam bu baax a baax rek ne nattu moom yàgg naa am bu baax a baax gis nga yonent yi lu metti li nga xam ne dal na leen ku mel ne Seydina Ibrahim ak doomam ji te bi mu ko waxee tim moom tim la ko yàlla wax des na ko def moom tim Ismaayla tim la yàlla dogal moom tim d'accord na ko waaye gis nga ne bi nga xamee ne topp na ndigal loolu na azimin kuuy bu mag lañ ko ko remplacer waaye gis nga tim Seydina Ibrahim ci ndogal yi rek loolu lañuy ñuy waxtaane gis nga tim bi nga xamee ne nit ñi tim dem nañ dem nañ ba sonn ci moom ñu ne daal kii daal nañ ko sànni ci ab teen boo xam ne nii wala kàmb goo xam ne nii dañ cee duy yàgg ko taal ak sawara ba mu jàpp jàpp jàpp ba nga xam ne lu ko jege sax diggante asamaan a suuf day daanu ñu jël ko daaneel ko ca biir kàmb googa moom yonent yàlla Ibrahim waaye mu nangu dogal ba waaye yàlla fekk naa ko fa ak sel ne ko yaa naaru nii fardan wasalaaman ala ibrahim gis nga yàlla ni mu baaxee même ki nga xam ne tim ëllëg dalaa nattu fii ci àdduna bépp ëllëg sax àjjana dana neex lool waaye bu la fayee ci àdduna tim da nga dem ba rus bardan la ko wax sawara wa ne ko sawara wi nekkal ab sedd waaye wasalaaman ñu ne bu fekkoon ne da ko wax rek ne ko nekkal ab sedd rek kon sedd ba tim mën naa sax dem ba sonal Seydina Ibrahim wala mu rey ko waaye wa salaaman ànd ak jàmm sedd bu ànd ak jàmm kon gis ngeen ne mbokk yi liggéey boobu nga xam ne yonent yi daanañ ko liggéey ñun ñu bàyyi xel ci liggéey bu am boobu ay yonent rek lañuy tànn nag boo ñëwee tim ci yonent yàlla ayuba alayhi salaam moom nga xam ne dafa nekkoon ku riche ku bari woon xaalis bari alal lu nekk amoon na ko lépp lu nit di am rek ci teraanga rek moom yonent yàlla ayub amoon na ko woomal ci ay xar ci ay nag ci ay gàtt lépp lu mën doon rek alali àdduna lépp la amoon amoon tim ay njaboot yu baree baree bari ami soxna ami njaboot lépp mu amoon ko moom yonent yàlla ayub waaye gis nga li ko yàlla nattoo yàlla da ko nattu ba alal jépp dem ba jeex tàkk soxna yi faatu doomam yépp tim faatu moom tim mu wéradi wéradi goo xam nii sax wéradi ngaana lañ ko mën a tudde wéradi goo xam ne nii dafa mujj sax ay sax ñoo koy mujj di ko wat moom yonent yàlla ayuba xam ngeen ne loolu metti na lool xam nit ñi sax dañ koo mujj nangoo duñ koo bàyyi ci kër gi nangoo duñ koo bàyyi sax ci dëkk bi génne ko sànni ca àll ba waaw loolu metti na lool waaye muñ googu muñoon dogalu yàlla bi yàlla fay na ko ba muñee mujj na wér ba yàlla naan ko amala abdu jaam bii moo baax kon gëm dogal gis nga yonent yàlla ayub alayhi salaam gëm ko nga xam ne gëm na ko dogal bi ak li nga xam ne ñëwal na ko ko waaye boo ñëwee tim ci yonent yàlla noo ak doomam jooju li lay xamal ne baax rek moo am solo waaye doolu ne ku baax ku nekk tim say doom yépp rek dañuy baax loolu tim mbokk yi lu jar a bàyyi xel la ndax yonent yàlla noo gis nga doomam ji nga xam ne bi mu wootee lu woote moom day bañ lu woote mu bañ suba gis nga ne bi nga xamee ne yàlla nee na ko ñépp lay alak ci gàttal waaye dafa ne yàlla daal sama doom ji xam nga doom dafa sori ci nit sama doom ji daal dama bëggoon nga may ma ma ànd moom yéeg ci kaw xeer wi ba tuufaan moomu ngay wax mooy mbënn mi bu ñëwee te mbënn lañ koy waaye loola ëpp na mbënn bu ñëwee ndax sama doom ji mucc yàlla ne ko maa ngi lay digal bul ñaan loo xam ne nii gënul ci yow te xamoo ko kon muy lu am solo waaye yàlla tim xamal ne ko kooku kat bokkut ci yow innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru salih ne ko kooku bokkul ci yow kon nit dana am ay doomam ba pare doom yooyu wala njabootam kooku tim bokkul ci moom loolu la yàlla wax yonent yàlla noo nekkoo du sa mbokk bokkul ci yow ndax moom du jëf ju baax waaye lépp mu nangu dogal ba tuub yàlla ne ko kon maa ngi lay tuubal yow mi xam loo xam ni man xamuma ko yàlla tim daal di koy jéggal gis nga tim yonent yàlla Zakariya ak yonent yàlla yaxya gis nga lu leen dal metti na lool Zakaria gis nga niñ ko def dañ ko rey rey bu metti te ab yonent la woon waaye ñëpp gëm dogal gëm nañ lépp lu mën di ñëw rek ñu nangu dogal ba nga xam ne niñ ko def metti na lool ci garab sax lañ ko dugal xar ko ñaari gaal muy lu metti lool waaye gis nga tim yaxya moom tim nañ ko def mu metti lool yi yonent yépp dañ leen a rey waaye ñoom musuñoo weddi yàlla musuñoo deltu ginnaaw musuñoo wax sax lii yàlla teggil ma ko wala dara dañoo nangu ndogalu suñ boroom ba suñ boroom ñëwee ak ndogalam waaye ba ñu faatoo tim xam na ne ëllëg lañ leen di dencal moo gën lépp gis nga kon yonent yëpp li ñu daj waaye boo ñëweeti yonent yàlla lootim nga xam ne ci jamonoom li ñuy wax mbiru góor jigéen ñaari tur yooyu yàlla nañ ci yàlla musal ci jamonoom ci la xewe ndax alxuraan moo ne kenn musu cee jiitu lu mel noonu ci yonent yàlla loot ay jamonoom te gis nga ne bon googu moom lañ doon bon ba léegi nii dafa fés ci àdduna bépp rawatina ñi nekk Europe ak foo man di nekk danga fay liggéey sax ñoo xam ne nii ay góor jigéen lañ ba pare dañ koy manifester sax ba pare nit ñi sax di leen bëgg di leen jàppale ci loolu gis nga ne soxnaam fii moom yonent yàlla luut nga xam ne lu mu sa xëy liggéey ba ngoon soxna sa toppaat ci yàqaat lépp waaye mu gëm ne lii daal nattu suñ boroom la bu waxee ba pare day demaat wër ci garam place yëpp ne leen kii li ngeen di wax li muy wax dara amu ci man mii maa xam man mii soxnaam day sóob day njàngal rek waaye dara amu ci waaye xam ngeen ne loolu mbokk yi metti na lool waaye moom nangu woon na dogal ba li nga xam tim yàlla tëral na ko ci moom kon mbokk yi seen émission soo soññeeg ziyaare ngeen ci àndak ak Mor ak Serigne Modou Mbaye Thiam Baye Fall ñoo ngi leen di siyaare bu baax ñoo ngi jéglu bu baax mbokk yi <coughs> ci baat bi xaw a sojog yu mel noonu xam na jamono yeeg yu noonu la waaye di waxtaane rek loo xam ne nii <coughs> jar naa waxtaane te mooy gëm dogal ak nangu dogal bi nga xam ne suñ boroom moo koy def ci doomu Adama kon mbokk yi bàyyi xel émission soññeeg ziyaare ñoo ngi leen di ziyaare ku nekk ci turam ak santam di ñaanal bu baax a baax sëriñ Muntaxa Basiru yàlla bàyyi ko fi lool wéral ko eggaleel ko yéeneem ba lim bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa liggéeyal ko lislaam yàlla defal ko ci lu kawe njortam kon li ñu war ñun mooy tënku ci ndigal tëggam dogalu suñ boroom niñ ko waxee ci yonente yàlla luut boobu waaye ba ci yonente yàlla musa gis nga moom tim li nga xam ne daj na ko ci digganteem ak na muy lu metti lool waaye danga gis ne moom tim ak xaaruna magam di doom baayam coono yi nga xam ne daj nañ ko te lépp rek suñu boroom moo indi ay ndogalam kenn mënu ci dara muy lu jara bàyyi xel ndax na mi nga xam ne demoon na ba ne xamaluma leen benn buur bu dul suñ boroom yàlla nattu ci nag Seydina Muusa ne ko demal ci moom nag wax ak moom ngir mu siwaat waaye tim danga gis ne dogalu suñ boroom tim bu yàlla bëggee dara tim moo xam nam koy jaarale waaye tim dañ ci jànge tim ne Seydina Muusa bi ko yàlla yabal waaye danga nga ci jàngatim ne képp koo xam da ngay dem ci kilifa moo xam kilifa diine la moo xam kilifa aada la war naa am comportement boo xam ne nii moom nga fay yóbbu ndax yàlla daf leen a wax ne moo aaroona magam ne leen dem leen ci firawna man naa am mu deltu ginnaaw wala mu tuub waaye nag fa xuulaa lahu xawlan layinan waaye na ngeen wax ak moom ci njëkk ak tiraanga nga xam ne kon loolu ñu ci jële ne même tubaab yi ak ku mën doon rek ku ñuy wax ak rek nañ wax moom ci yar ak teggin ndax ñun loolu rek ci lañ yarte Sëriñ Tuubaa loolu la wax yarak ak teggin mooy lépp kon naa Muusa gis nga bi mu nangoo dogal boobu waaye ba mu ñëwee tim yàlla fay na ko bu baax a baax waaye danga gis ne tim yenent yàlla bu ak ñaari doom yu jigéen yooyu gis nga coono yi nga xam ne tim doon nañ ko daj nga ñooy dem di wëgg di root ca teen ba waaye gis nga tim yonente yàlla Musa muy xisa bu neex boo xam ne ni lu am solo loo xam ni dañ ciy jàngee bu baax daal ne liggéey rek mooy li am solo waaye wóortim ak wértim lu am solo la waaye ak wértim lu am solo la ndax xale yu jigéen yooyu biñ leen dimbalee ba ñu root te boobu mënuñoo root ndax ay góor ñoo fa nekk te ñoo amuñu doole ba mu leen dimbalee ba mu leen laaj ñu ne ko suñu bàyyi day mag te munta ñëw ah, moom mu dimbale leen ba ñu root seen rootal seen bopp rootal gàtt ya ba ñu mànd ñoom ñëpp léegi nag bañ paree ñu ne ko léegi da nga ñoo bëgg nga ñëw ñu dem ci suñu bàyyi ndax yow daal ku baax nga gis nga bi ñu demee seen bàyyi xale yu jigéen yooyu ñaari xale yu jigéen yooyu waaye sax avant ñuy dem seen bàyyi sax dañ ciy jàng ne jigéen ku yàlla suturaal la ku yàlla teral la waaye jigéen tim ku mën a yee fitna la xale yu jigéen yooyu ñu yaru lañ liñ wax mooy nañu jiitu nga topp seen ginnaaw wala yonent yàlla Moussa moo tax na jiitu leen ma topp seen ginnaaw saa bu ngeen waree jàdd saa bu ngeen waree jàdd wala bu ma waree jàdd rek nga ne ma jaaral ndi jor wala jaaral càmmoñ ba ñu egg ci seen baay waaye biñu eggee seen baay tim dañ na ko kii ku wóor la ku jàmbaare la te ki nga wóolu dëgg dëgg mooy koo xam dafa am doole pare nekk jàmbaar yaakaar naa loolu nag dana indi ak wér li ñu xam mooy ak wér dafa am solo kon li nga xam ne docteur yi ñu ngi koy wax te suñuy sëriñ tim wax ne nañ topp ndigali docteur yi kon tim nañ ci bàyyi xel bu baax te gëmaale dogalu suñu boroom gis nga ne loolu tim yombut ci moom ndax koo xam ne nii dem nga ñu ne dañ lay may soxna waaye da nga ñuy sàmmal juróom-ñetti at da may liggéeyal juróom-ñetti at waaye boo ko defee fukk tim mu gën a baax kon moo lay xam ne tim soxna tim mus sa yomb fenn kon tim nu gën a jàpp bu baax soxna yi te yërëm leen te jàpp leen bu baax waaye da gis ne yonente yàlla Moussa daal liggéey na liggéey bu rëy ak magam jooju di Haaruna gis nga taxawaay bu mag boobu moom la Sëriñ Tuubaa naan ka Haaruna min Moussa comme ni Haaruna jàppale woon Seydina Moussa muy loo xam ni lu jara bàyyi xel la mbokk yi lépp nag niñ ko waxee xëjut ci kii waaye dañuy cof rek di dem waaye boo fa jógee tim mën ngaa ñëw ci yonent yàlla yanquuba metti na lool bi nga xamee ne moom doomam yooyu nga xam ne amoon na leen waaye doom ji nga xam ne moom moo ci gën a nekk daal nga xam ne moom la ci gën a bëgg mooy yuusuf gis nga tim moom tim natt bi nga xam ne yàlla nattoo na ko ko ki nga bëgg a ki nga gën a bëgg say doom ñu xëy xëy rek ci gàttal xissa bi ñëpp dégg nañ ko waaye jar nay jaaraat ndax fa zakiri in nafaati bu fekkee danañ ci jële bu baax gëm togo rek danga ko jàng ci yonent yàlla yuusuf ak baayam bii di yanquba yonent yàlla yanqub dafa mujj jaaxle ba mujj sax dafa mujj silmaxa xam ngeen ne loolu metti na ndax doom ji nga xam ne ay mbokkam gis nga ginnaaw dogal yàlla ba gis nga niñ ko def ba sànni ko bëggoon ko rey ñëw na seen baay ak till jàpp na ko ndax rek bëgg ne seen baay bi nangam ak nangam loolu day am ci kër yi waaye lépp rek liñ ci bëgg a xam rek liñ ci bëgg a wax rek mooy nangu dogal luy jëriñ la ab jaam waaye gis nga yuusufa tim doomam ji bi mu nekkee ci kër buur ba gis nga jafe-jafe yim fi am ba ñu mujj tëj ko ci kaso waaye ku muñ rek muñ mujj ne nekkaat foofa liñ koy waxee ministre bi nga xam ne moo yor économie moo yor lépp wax nañ ne sax soxna soos nga xam ne sax moo ko doon tuumaal moom lañ ko tuumaaloon kooka sax soxna sax mujj na kooka ki nga xam ne moo ko doon indil ay problème mujj na yàlla lim mu bëgg a def dana ko def soxna soo sax mujj na ñu joxaat ko soxna ci lenn ci historiens yi niñ ko nettalee waaye gis nga ne mujj na ba muñee lépp rek mbokkam yooyu mujj nañ ba jamono naqare ñu ñëwaat sax ci moom di sàkku ay ndimbal te xàmmeewuñ ko sax kon at mu naqaritim ñu xam ne at mu neex dana ñëw ndax alxuraan moo wax ne watilkal ayaamu nudaawiluha bëccëg yi ak bis yi yàlla da koy jaxase te da gis ne dogal boobu tim day am lu bare bari ba xare badar ak xare Uhud xare badar jullit yi dañoo gañe gañe gu metti lool ci yéefar yi xare Uhud biñ ñëwee tim ñu gañe leen gañe goo xam ni metti na lool ba yéen nafiq yi sax ca lañ doxe ñoom di wax lu nekk yàlla nag na leen doodu ni nag bus bu set niñ koy waxe bàyyi rey mbët démb neexoon na tey day naqari kon ab jaam day gëm dogalu suñ boroom lépp loo xam ni ñëw na rek ñu nangu dogal bi gis nga ne kon Yuusuf ak mbokkam yi ak tuumaal yu metti yooyu yépp nga xam ne daj na ko waaye lépp mu nangu dogalu suñ boroom kon yonent yooyu nga xam ne dañ leen a sélectionné woon te ëpp na ko waaye ci gàttal rek dañ cee am yuñ ci tànn doon ko baaxe suñu mbokk ñu suñuy mbokk ñu ci suñ biir lool rek lañ ci jublu waaye dañuy daal di ñëw kon ci yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam gis nga ak moom nga xam ne yàlla nee na lawla uma xuliqat shamsun wala qamarun moo tax ñu bind nit ak jinne dogon ko nag moom yàlla nee na du bind asamaan du bind suuf waaye gis nga natt yi nga xam ne ti moom tim dal na ko moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax natt yi fi mu rek mooy yonent bi bi muy juddu fekk na baayam gaañu nga xam nga ne loolu metti na nga xam ne moom dafa judduwaale ak njirim juddu la def fekk baayam gaañu muy lu metti lool waaye gis nga ne ba biñ koy yóbbu di ko nàmpal ndax araab yi seeni doom dañ leen daan jël di ko nàmpalu ci dëkk yi kaw gi ndax dañ ne foofu ba léegi ni da gis ne ñu dégg wolof dëgg-dëgg dañuy dëkk ci dëkk yu sore yi ñooy gën a dégg wolof ndax seeni wolof day gën a leer waaye bi nga xamee ne tim ñi ñëw di nàmpal si ci dëkk bi dañoo wër wër ku nekk nangu koo jël dañ na kii moom ku ko jël tim du la fay ndax baayam jirim la waaye xam nga loolu kon ndogalu yàlla bu metti commencé naa dal ci moom ci koo xam ne liir bu tooy xipp la mu metti lool waaye gis nga ko jël moom tim waaye la ko dikkal tim bari na lool waaye gis nga ne tim yëggu dara ak coono yi nga xam ne tim dañ na ko foofa ah baayam tim ak nim teel a gaañoo nga xam ne booba juddoogut waaye yaayam tim yeggu dara yu néew mu nekk ndaw yaayam tim daa di nga xam ne kon amatul ndey amatul baay te boobu amagul juróom-ñaari at sax xam nga ne ndogalu suñ boroom bu ñëwee kenn mënu ci dara te yàlla lu ko neex rek lay jëfe ndax moo ne iza arada shay'an an yaqul lahu kun fa yakun faalun lima yurid du laaj kenn lu muy def waaye ku def ku nekk dana laaj yow la nga doon def gis nga ne tim coono yooyu kon maamam mi ko yor bëgg ko lool am ci moom cofee lool dogal yàlla ñëw tim maamam jooju daal di gaañ kon jamono gën a metti ci moom te kii nga xam ne yàlla moo tax mu bind lépp maamam jooju tim daal di gaañu waaye bi mu demee ba xaw a dëgër bay def commerce ak sax nattu yi ko dal yépp ri mooy mu nangu dogal bi daan dem di sàmmaani moom yonent bi ñu koy fay lu tuutee tuuti ci waa Makka waaye wóor googu mu wóorti jar jar jariñ na ko lool moo tax bu kenn xeeb dara tàmbali leen ndànk-ndànk lu nekk mën naa ñëw ndax bi nga xamee ne ci sàmmaan googu ak wóor googu mu wóor moo tax am ñu ko laabiire mu dem ci benn soxna soo xam ne nii soxna su bari alal la di dëkkoon màkka mu dem pour bëgg ne ko na ko jël mu koy liggéeyal mu koy fay lum tuuti tuuti lu mën a gañe waaye soxna si tim daal di ak moom jox ko muy dem di commerce di ñëw waaye saa bu ñëwee bénéfice bi day bari lool waaye tim mu gis ne kii ku wóor la ku baax la mu def ay pexe ba ñu may ko ko moom na xadija radiyallahu anha waaye biñ ko ko mayee tim coono yonent bi mel na lu bëgg a commencé wàññeeku ndax euh, soxnaam si dafa amoon personnalité ci màkka benn ki nga xam ne bëgg na yonent bi moom dana fexe ba ngay gën a bëgg yonent bi waaye ñi nga xam ne dañoo contre yonent bi tim am na ay yoon yum tëral yoo xam ni dana fexe ba nga xam ne danga rus même boo bañoon yonent bi tim da nga ko rusee euh, soxnaam si di Xadija radiallahu anha nga xam da lay xëpp alal xëppatim jàmm ak salaam ba nga xam ne mënatoo ci dara kon loolu aaya bi wax ci alxuraan soxnaam si teel na ko tàmbali lool idfaa billati iya ahsan fa ida allazi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun xamim wa ma yulaqaaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaaha illa du xasin azim kon ku muñ rek da muñ waaye gis nga noonu bi jàmm naree am tim tuuti soxnaam soosu nga xam ne moom la amal doom yépp ba mu des benn doom rek bu tudd Ibrahim soxna si dim dafa daal coono kon ñëwaat na ndax amatul kenn ku koy protéger moo xam ci màkka moo xam ci mbokk yi ndax mbokk yi mu dese di amuñu doole amuñu personnalité kon jafe-jafe am na waaye tim gis nga ne doom jooju nga xam ne tim wax dëgg yàlla dafa sori woon ci moom muy Ibrahim nga xam ne Maariyatu Xibtiya moo ko jur moom tim dafa daal di faatu yàlla ku bari ay ndogal la gis ngeen ne tim doom yépp moom yonent bi doom yépp dañoo faatu avant mu fi jóge ba mu des benn doom te mooy faatima Roqayatu Umu Kalsoom ñoom ñépp dañoo faatu nga xam ne tim yonent bi ndogal yi nga xam ne dal na ko bari na lool moo xam ci xare yi la ba ci këram sax ba ci këram am na ay jafe-jafe yoo xam ne lépp ndogalu suñ boroom la ba ci hadisu ifku boobu nga xam ne ñu bari ñu ngi koy bàyyi xel te mooy lu metti la ak ku man doon rek danga am jafe-jafe sa soxna wala sa njaboot ñu xëy rek tuumaal ci wax leen loo xam ne nii sa àdduna day jeex takk ndax ñu xëy rek wax ne soxnaam si di Aïsa radiyallahu anha te yonent bi fonkoon ko te waxoon ne seen ters diine ci soxna su xeereer su ndaw si maanaam seen diine bu ngeen ko xaayoon ñetti xaaj benn xaaj bi man ngeen ko jël ci soxna si nga xam ne mooy sayidatuna isa radiallahu anha di doomi sayidna abubakar as sadiq xaritu yonent bi sallallahu alayhi wa ñu xëy xëy ne tuumaal ko loo xam ne nii wax dëgg yàlla metti na lool ba metti na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ku gëm dogal la waaye tim da ci jàngatim ne mbokk lu am solo ndax yonent bi mu amee jafe-jafe tim dafa consulter ay mbokkam yépp ku nekk mu laaj la sa xalaat noo gisee loolu ku nekk wax na gis ba ci sayidna ali karamallahu wajhahu moom gisin wate mbokk la lu ko neex ci yonent bi ak lu ko naqari war na ko wax ndax mbokkam la doomu baayam la te moo yor doomu bu jigéen la lam wax bi mooy yow daal jigéen wóoru laa jomb ndax am na loo xam ne nii àdduna jëru ko man sama xalaat mooy nga bàyyi ko loolu tim liñ ciy jëlee ci ak ndogal mooy mooy loo man di wax rek ci àdduna rek boo ko dee nëbbu ak boo ko nëbbu rekk mën naa dem ba génn ndax Seydina Ali loolu mu waxoon nag yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xabaar boobu dem na ba tas ba mook Sayyidatuna Aïsa seen diggante musta neex musta neex dafa mus di naqari ci saxaaba yi ci xali xilaafa yépp ba ci xilaafa ak Seydina Ali itam diggante boobu kon na di naqari ba faw loo xam ne nii tim wax dëgg yàlla Sëriñ sax day bind ne wajabal imsaaku am shajara loolu jërut di sori waaye liñ ci bëgg wax rek mooy ndogal bu amee kenn mënu ci dara ba yawmal jamal boobu nga xam mett na lool ba nga xam ne ay fukki junniy nit wala lu ko ëpp dee na ci jullit yi ci ñaari côté yooyu ci diggante soxna si yonent bi ak Seydina Aliyu muy lu metti lool waaye da gis ne yonent bi tim ak ndogal lañ bëgg a waxtaane rek gis nga bi mu wéradee sax te wéradi googu sax ci la génne àdduna tàmbalee ko ci bopp buy metti waaye yaram buy metti mu mujj dem ba nga xam ne buy jóg day metti di soox ndànk-ndànk ba yàgg munta taxawati nga xam ne dañ koy yóbbu buñ jullee bu ñuy julli dañ koy yëkkati kii jàpp fii kii jàpp fii xam nga ne ndogalu suñ boroom moo metti lool jagam yonent bi lay dal waxuma laa kon ñun ñi nga xam ne ay nit ñu xeebu lañ yonent bi dem na ba nga xam ne dañ koy nëbbu sax bu ñuy nodd sax dañ koy nëbbu ndax munta taxaw te saa bu déggee rek hayya ala salaat hayya ala falaa du ko mën a muñ danaan di yëngutu ba nga xam ne rek munta bañ a dem julli ji waaye li lépp ndogalu suñ boroom la wéradi ga metti na ba nga xamee ne sukkuraat sax ñëw na yoon bi daal naan waaye ndekete sukkuraat metti na lool kon gis nga ndogal yàlla bu ñëwee ci jaam yi nañ ko nangu lool ni ko sëñ Moussa Ka waxe ne euh, saa bu ñëwee rek nañ ko nangu benn dafa am luñ lay yëkkatil wala luñ lay teggil waaye tim kon ci ay gàttal rek lañ wax kon ñu ñëw nag ci ki nga xam ne mooy xaadimu rasul nafaana allahu bi barakaatihi moom mi nga xam ne lépp moom def na ko te lépp woote na ko ba yàlla ñëw ci moom moom mu doon koo xam ne nii ak muñam ak nangu dogalam boo koy xool danga naan amul fenn moom Serigne Touba moo tax mu ne muñ daal amul yemukaay moo tax mu ne bu fekkee ne ay xewal ñëw na na sant suñ boroom waaye bu ab natt ñëwee tim ko muñ noonu la ko sëriñ Tuubaa waxe ne usika bi taqwa wa bi tawakkuli wa sabri wa rida wa xasril amali nee na yow taalibe bi yow jullit bi maa ngi lay dénk nga ragal yàlla wala nga waaye waaye itam ngay wëkkilu ci suñ boroom mooy ndigal yi nga xam ne santaane nañ ko nañ koy def waaye itam nañu bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la docteur yi digle ci bàyyi xel bu baax liggéey boobu nga xam ne ñoom ñi ngi koy liggéey waaye kon mooy at taqwa wa tawakkul waaye itam muñ loolu la sëñ Tuubaa wax waaye war rida li yàlla dogal tim nga nang ko bu baax waaye la ca tegati mooy xasrul amal gàttal mébét yi ku nekk xam ne ne crise mondiale fi ni am na ci réew yépp kon mébét yi nañ ko gàttal bu baax a baax moo tax mu ne wa in atatka nexmatun fal tasbira wa in atatka niamatun fal tashkura kon li jara sant mooy ngay muñ waaye di nangu dogalu suñ boroom bi waaye di sant suñ boroom bu baax a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa moo wax ne niama silahul mumin as-sabru wa duaa nee na ngànnaayul julit ak a baax mu mel ne daj na ko waaye yoyu mooy yan mu ne mu ne muñ mooy muñ ak di ñaan kon bakkan boo xam ne nii man nga rek te yàlla dogalu ko kon ñi nga xam ne ti dogal na seeni bakkan met des na ko am des ko kenn xamut nu mu toll ci suñu boroom ndax Sëriñ Tuubaa moo ne ahlul balaa laysa lahum mizaanu wa laysa yunsharu lahum diwaanu nee na ñi nga xam ne yàlla da leen teg ay balaa kenn du leen audité ëllëg amul ay kaye wala biig bu ñuy jël di bind naan lii nangam ak nangam déedéet kon képp koo xam ne da faatu yàlla moo ko andi te kenn mënu ci dara noonu la ko yàlla waxee ci surtu ali imran wa ma kaana li nafsin an tamuuta illa bi idnillah kitaaban muajjalan wa man yurid sawaaba dunya nuuti minha wa yurid sawaaba al axira nuuti wa za najzi shakirina kon muy lu jara bàyyi xel mbokk yi te mooy muñ rek Sëriñ Tuubaa muñ eggoon na ci foo ni kenn musu fa egg alxuraan moo wax ne wasbir ala ma asaabaka inna dalika min asmil umur lépp loo dal ko muñ Sëriñ Tuubaa nee lool de ci jikko yu màgg yi ci qualité yi gën a rëy ci la bokk kon képp koo xam ne nii rek danga aju ci sëriñ Touba wala ngay ab julit war ngay muñ te nangul dogal bu baax a baax wala yenn najziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsana ma kaanu yaamaluun yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo muñ de yàlla dana leen fay-fay goo xam ne nii gu réerëy ci loolu ñu doon def te mooy muñ koogu kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na asabru diyaun na muñ ak leer la leeru suñ boroom la kon mbokk yi ñuy bàyyi xel seen émission soññeeg ziar ngeen ci ànd ak Mor Sylla Taif ak Serigne Modou Mbaye Thiam Baye Fall ci sëriñ Serigne Mountakha Bachiru Mbacké kàddu ki bàyyi fii ci Milan ci Italie ak suñu directeur programme sëriñ Ibrahima Ndiaye Al waaye sant bu baax mbokk yi bàyyi xel émission bi di soññeeg ziar di jéglu bu baax ci gëj gi déggante waaye di suñu sago buñ sañoon bu set ñuy gisanteeg yéen di saafaxanteeg yéen di di euh, jokkalante ay xalaat ndax alxuraan dafa bëgg ñuy waxtaan di bokk ay xalaat wa shaawir um fil amri fa ida azamta fa tawakkal ala allah ak fa mu wax ne wa amruhum shura baynahum ñu bàyyi xel ci aaye boobu ñaanal ñëpp tawfiix ak taysiir barke xaadim rasul kon xam naa sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall mbokk yi bàyyi xel émission bi xam naa ñu baree bari xëy na connecté gun waaye ñoo ngi leen di bàyyi xel daal di ñaanal ñëpp tawfiix ak taysiir barke sëriñ Touba suñu auditeurs yi duñ leen fàtte mukk ñu ngi ci suñu xel ak suñu xol kon mbokk yi ubbi nañ ligne bi ci Skype bi mbokk mu bëgg euh, woote rek mën naa woote ñu jël ko incha allahu taala ci tey li ñuy waxtaane te mooy gëm dogalu suñ boroom te nangu ko bu baax a baax kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp tawfiix ak euh, taysiir barke xaadimu rasul di wax ne ku am daal loo xam ni kenn amu ko war ngaa góorgóorlu war ngaa sant bu baax a baax ndax li ñu sëriñ Tuubaa defal dafa rëy lool nee na léppam léppam ak féppam walla yoo xam day sax ba faw te du deñ ba mukk lu bon du ko jege képp ku bon tim du ko jege lam yan uni shaxan wala fasaadu wa silai lam yan xora kasaadu la sëriñ Tuubaa wax nee na texee di wala luy yàq wala njaay moo xam day lambu moom du jublu Serigne Touba kon loolu moo mbokk yi Serigne Touba moom li ko yàlla defal musu koo defal kenn ilayya xaadallaahu maalam yakuni wala yakunu abadan li mumkini loolu nag niñ koy dégge mooy Serigne Touba am na loo xam ni kenn musu koo am du tax nag Euh, boroom tariixa yi kenn suñ cee wax kenn lu dul ñoom ñu baax lañ ñu tegu ci aw yoon ndax sëriñ is kulluhum xatnaan ala sawaabi ñoom ñépp ci yoon wu leer nàññ lañ nekk yoon wu baax lañ nekk woo xam ni ku ci jàpp dana la eggale ci suñu boroom kon muñ mbokk yi mi ngi noonu mooy lépp ba ci njaboot yeeg yépp a sabruwal wal musaabara muñ nag te mooy gëm dogal bi am na soxna si bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne mbokkam gaañu na muy nekk di yuuxu mel ne kuy xaw a saalit yooyu yonent bi dane ko asabru inda sadmatil ula ne ko muñ nag ci tàng-tàng bi la waaye doo xaar ba nga xam ne munta ñàkk mu ngi mel ne ku la ameel bopp nga yóbbu ko ba tribunal ñu àtt kat amee lu la dara wala du la fay nga door ne bàyyee naa kook yàlla déedéet muñ sa tàng-tàng ba la yonent bi wax kon noonu ñu ko waxe woon ci Sëriñ Tuuba nafaana allahu bi barakaatihi gis nga coono yi nga xam ne ti moom tim daj na ko te ci ak ndawam la ko daj muy lu metti lool ndax xam ngeen ne eh, soxna maam jaara busa bi muy wàcc liggéey xam ngeen ne booba wax dëgg yàlla sëñ bi ci zahir wax dëgg yàlla du mag waaye tim gëm dogalu suñ boroom gi gis nga tim li nga xam ne indil nag ko waaye gis nga dogal yi nga xam tim dal na ko te mooy jamono yooyee colonialiste si ñëw indil ko ay jafe-jafe yoo xam ne nii metti na lool waaye liggéeyal yàlla ak yonent bi moom jaral na ko lu nekk ndax nee na bëgg mu bëgg yonent bi moo tax moo ko fàttaloo bëgg ay njabootam bëgg ay doomam bëgg kom àdduna yépp gis nga ne kon bi nga xamee ne tim ndogal bi ñëw na ba nga xamee jóge na xibaar yi ni ko waxe jóge fa dem Louga ba nim demee Ndar coono yooyu metti na lool ba nim demee gis nga muy coono yu metti yoo xam ne ni jar naa bàyyi xel bu baax a baax ba mu naan isa zakartu dalika al mabita wa dalika amira wa thabuta qarat ila al jihaadi armaahi nafsi walakin dabba anni al maayi bu mm-hmm. fàttali ko metti ci moom ba tax am leneen lu xalaat ah, ku salaamaaleykum sëriñ Masila Taïf ñu ngi lay seere bu baax a baax. ñoo ngi delloo ziar ku baax tur beeg sant beeg koy wax Dame Gueye la di wootee fii ci télévision. ah alhamdulilah sëriñ Dame Gueye maa ngi lay ziare bu baax a di ziare mbokki télévision yi di am mbégte lool ci déggante ak yéen. macha allah alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi lay ziare ci télévision nga tegal ci auditeurs yi ak auditrices yëpp sëñ Dame. ñëpp nga lay nuyu ci loo xam namoon nañ la lool nag wax dëgg yàlla macha allah namoon nañ la lool. alhamdulilah ak ñun ak daam ak ñun. ak ñun wallaahi ak ñun di saare mbokki taalib yi nga nekkal yëpp. jërëjëf jërëjëf sëñ daam jërëjëf. di rafet lu baax a baax. Euh, di lay bu baax. Mhm. di ziare mbokki taalib waaw sant yàlla baax sant. jërëjëf jërëjëf sëñ daam. di ñaan lu baax a baax Serigne Touba Serigne Mountakha ak sëñ Cheikh Jëmb ñu yàgg fi lool ca amin allahuma amin allahuma amin amin kay sëñ daam nga ñaanal mbokki taalibe yépp nag wax dëgg yàlla amin allahuma amin sëñ daam waaw di siyaare baax a baax euh, mbokk yi na ci rajo bi di jiital sëñ Mamadou Mbacke jërëjëf jërëjëf ñoo ngi koy siyaare bu wér ak sëñ Moustapha Mbaye Sam ak Baye ak Baye Ibrahima Ndiaye jërëjëf jërëjëf alxalil jërëjëf ak ak Modou Mbaye Thiam moom tam Baye Fall ñoo ngi koy siyaare bu baax a baax a baax ak fayam kenn amu ko. waaw macha allah. wax dëgg yàlla di ziare mbokk yi nga xam ni yëpp ñu mën a jaar tamit dégg suñu baat rek ñu ngi leen di ziare baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ daam jërëjëf waaw ñoo ngi lay ziara di la laaj. <laughs> noo gis daal fi ni ci uh, gi nga xam ne am na fi ni ci jafe-jafe yeeg yooyu daal. waaw lan nga ci mën wax moom ne xanaa moom xanaa sant yàlla rek sant yàlla rek nag. alhamdulilah ndax euh, bu ñu santul mënuñ ci lu bari ndax mbir la moo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne sunu borom la jógee. dëgg la dëgg la gu wér dëgg la gu wér. mooy ñu sant te ñaan moom mi ko fi andi mu mu jëlee ko fi ci wutal fi ci ñun loo xam ne nii moo gën a dal sunum xel. amin amin allahuma amin amin. xala bu baax a baax ndax yaakaar naa bu fekkoon nit mën na ci dara ba léegi jóge na. wallahi dëgg la wallahi dëgg la. Eh, yàlla mi nga xam ne moo ko fay daal yàlla na ko fi jële ci barke Serigne Touba. amin allahuma amin allahuma amin di siyaare mbokk yi xam ne yàlla def nañ jot eh, jir ji ñoom itam yàlla xaar leen àjjana teg loxo seen njaboot ci barke Serigne Gawane. amin allahuma amin borom dërëm ngërëm amin ah, amin waaw di di di di soññ sama bopp di soññ mbokk yëpp rek ñu ñu ñaanal sëñ mu taxaw mu yàgg fi lool te wér. amin amin amin allahuma amin non te noonu mu ko waxee ñi dégg ko noonu rek maanaam ñu jàppalante ci yàlla tax ci kenn ku nekk tàmbalee ci kër a gën a jege. Mm-hmm. amin bu ñu ko defee rek ci jàppale ne yëpp mën naa weef daal incha allah fii. askay askay. waaw ñoo ngi ciy siyaare wàllu baax a baax sunu mag yu baax ju nekk fële Bolaña moom tam auditeur rajo bi la sëñ Cheikh Fall Baye Góor. ñoo ngi koy siyaare bu baax sëñ Cheikh Fall baay Góor. ak soxna Faty Fall sama rakk la moom tam nga fa moom tam wasiru rajo bi la ñoo koy ziare soxna Faty Fall ah ok ak Serigne Ndiaga Diop ci Mantua ak Serigne Abdou ñoom ñëpp ay auditeurs yoo xam ne ñi duñ duñ tardé mukk bi wax dëgg yàlla alhamdulilah ñoo ngi leen di ziare di fasante ak ñoom kóllëre bu wér <laughs> jërëjëf sëñ Mor comme xam naa aleykum rahmatulah sëñ Mor suñu <laughs> teg foofu rek ba ba ëllëg allah jërëjëf sëñ Daam jërëjëf am nañ mbégte lool am nañ mbégte lool wallahi ci déggante ak jërëjëf Tarkala. asalaamaaleykum yal na yàlla yokk jàmm ak xéewal. amin barke Serigne Touba te ngeen ñaan nag ni ma koy waxee rek. Mm-hmm. yàlla yokk jàmm. dërëm ak ngërëm nga ñaanal ñu koy barke maam Cheikh Anta borom dërëm ak ngërëm. yàlla itam dafa sànq dafa daaree nii barke sëñ Gaw. rajo bi daal rawatina émission bii di soññeeg ziare. Mm. yàlla na nga yokk ba yëg ko yàlla nga mucc ci ndog yi. ko yàlla nga mucc. amin yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def barke sëriñ gaawaan xewal yi baawaan lool nag ba nga xam ne at mi ñuy wax jafe-jafe yi la ciy mujj mooy ku nekk mhm. ne at mi moo dàq at moo mus def yàlla mën na ko yàlla na ko def barke sëriñ Tuubaa alamin jërëjëf jërëjëf ñu bàyyi yéen mbokk taalibe kon ñu dugg siyaare jërëjëf sëñ daam am nañ mbégte lool jazaakumullaa xayran jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah sëñ ngay siyaar bu baax <laughs> ñoo ngi delloo ziar bu baax a baax. di ziar suñu daam moom yi génn. ñoo lay ziar bu baax kay sëñ Ibrahima. waaw ñu ngi ziar bu baax kay. ah alhamdulilah maa lay ziar bu baax di am mbégte lool. di a baax nag di teewlu émission bi. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ak ñun wallahi ñoo ngi sant bu baax ñoo ngi dégg say témoignage yu rafet yooyu def ci ñun waaye lépp yéen la ndax arab yi dañuy wax ne <laughs> baaxidu i ilaa yuxtihi nit ki lim am rek lay joxe baax ngeen wallahi yéen moom ay royukaay ngeen yéen alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah di siyaare di baax di jërë ngeen jëf kay ñoo ngi leen di ziare kay mbokki tey di sàkku ñaan nag bu baax sëñ Ibrahima <laughs> ñu ngi ñaan bu baax amin amin Njaay amin kay di teewlu sa waxtaan di ci bëgg lool di ci bëgg lool sëñ Sadex mi ngi fi <laughs> ñu leen di siyaare di siyaare waa kër sëñ Maji Njaay yëpp nag di leen bàyyi xel bu baax a baax ñoom nag seen pas-pas <laughs> seen pas-pas jaare sëñ Njaay bu baax a baax te yow fi sax moom da da ngaa ñëw indaale programme bu bees. xam naa yow la suñu mën a doon xaar. alhamdulilah alhamdulilah rabbil <laughs> ci yàlla def xéwal ñu ngi rafetlu. amiin kay amiin de yow de nag ci gi daal lu mu tuuti di Cheikh Ibrahima. waaw moom kay xanaa gën cee sant suñu borom bu baax rek ñu ko suñu alamin alhamdulilah rabbil na suñu borom moom du yàq day defar. dëgg la wallaahi dëgg la dëgg la bu weer def rek moom day defar dëgg la dëgg la bu arida bil qada dëgg la amin amin amin amin wallaahi dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la wallaahi dëgg la dëgg la dëgg la dëgg muñ ca tàng tàng ba inna ma'al usri yusra inna dëgg la dëgg la wallaahi dëgg la dana gën a baax dana gën a baax amin amin ndax yàlla amin ndax yàlla ñëpp nag naan rafet njot rek comme ni amin ndax yàlla xëywal amin yi topp nag amin amin ndax yàlla amin ndax yàlla amin ndax yàlla amin jàngale rek yal na yàlla dogal nag ñu mhm. cee jàng lu bare rek ak sëñ Tuba dëgg la amin amin kay amin kay amin kay amin rafet la taxawaay bu baax nag. alhamdulilah alhamdulilah ñoo ñaan bu baax nag ci yéen. waaw liñ bëgg a liggéeyal sëriñ bi daal yàlla defal ñu lu kay suñ njort dara bañ ñoo gàllankoor. amiin amiin wax xaadim sam. barke sëriñ Touba. jërëjëf dund jërëjëf jërëjëf sëriñ Ibrahima jërëjëf sëriñ Ibrahima Ndiaye Al Khalil jërëjëf. ñoo lay ziyaara di rafetlu émission yu am solo yi ak taxawaay bi lépp yal na yàlla taxawu leen tàmm leen ak képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi liggéeyu sëriñ Touba bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ku baax. Cheikh Mor Sylla. Mbacke Balla. ah namoon nañ la lool lool Amadou Niang Espagne. sëñ Amady Dieng. Amadou Niang. ah sëñ Amadou Niang Espagne askay askay ñoom lay. jaara bu baax a baax bu baax a baax. lay baax a baax a baax alhamdulilah. ana sëñ Cheikh Sylla Ba nga ko dégg. déedéet tey jii rek tey jii rek dégg nañ ndax yàlla dafa dogal kat tey dañoo am tuut tànk tey jii ñun ñi ah alhamdulilah alhamdulilah. waaw ah, kon nag tàmbalikaay la boo xam nii sax ah, alhamdulilah. yal na yàlla doon na xelal barke sëñ bi ah jamono la loolu sëñ bi wax dëgg yàlla. amiin amiin ak ñun sëñ Amadou ñu ngi lay ziare di ziare mbokk espagnol. ñoom ñëpp jërëjëf jërëjëf Niang maa ngi leen di ziar maa ngi leen delloo ziar bu wér sëñ Amadou. di ziar bokk sama wetu kër waaye parce que nga àndoon la ko ñoo ko fàttali ko. dëgg la dëgg la dëgg la ah, dëgg la ñoo dem. ah askay askay ah. waaw waaw moom day sama kii lool suñ lépp la. Ah, ku baax wax dëgg yàlla. lépp la de suñ lépp la taalibi rek ko ñor. ñoo ngi am nañ mbégte am nañ mbégte ci yéen bu baax a baax. ñeeg comme gars yi a dugg danañ jëgante ah jërëjëf. jërëjëf am nañ mbégte loolu jazakumulaa jërëjëf. su ma seet na suñu yaakaar doo jërëjëf sëñ Amadou jërëjëf. jërëjëf sëñ Amadou Niang doon woote ci Espagne ñoo ngi koy siyaare mbokk yi nekk Espagne yëpp bàyyiwuñ kenn salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah ku baax ñoo ngi lay ziare waa ñoo ngi delloo ziar kay sëñ Mor Mbacke Balla sa mbokkum mu nekk fii ci Touba Angleterre London Matar Sall ah sëñ sëñ maa ngi lay ziare bu baax ñoo ngi dégg say yóbbanteeg yëpp kay ñoo naka naka mbokk yi nekk London ñoom ak sa foofu ñëpp bi nekk foofu ñu ngi sant bu baax a baax di yóbbante seen siyaar ñoom ñëpp ñoo doon ñoo ngi lay ziar ba baax sëñ bu baax di siyaare mbokk yi nekk London Birmingham yëpp rek Manchester ñëpp rek auditeurs yi nekk foofu auditrices yi waaw ah, ñoom ñëpp de wax dëgg yàlla ñoom dañ lay laaj saa su nekk ma ne yow moom daal fi jërëjëf am nañ am nañ mbégte lool am nañ mbégte ci yéen bu baax a baax wallahi ñoo gën a bég ci yéen sëñ Ibrahima Ndiaye itam ñoo ngi koy ñoo ngi koy jaajëfal Mohamed leeral yooyu mu doon leeral keroog émission boobu mu séqoon ak kii sëñ Mahmoudan dëgg la dëgg la taxawaayam kay benn la taxawaayam benn la xam naa bu amee ndigal ci moom sax bu dee mi ngi may dégg yu nekk ñoom it jiite ay lu jëm si wàllu fédération beeg yooyu xam naa ne ñoom bu jokkoog ñoom dina leen a dolli ay xalaat yooyu. baax na incha moom ngay dañu ci jokkoog yow bu baax a baax mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg sëñ Ibrahima mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg. Mbaye Samb ñoo ngi koy ziar sëñ Mahmoud dan yëpp daal ñu nekk ci rajo bi rek fàttewuñ kenn. waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Maxtaar ñoo ngi lay ziare di am mbégte lool ñoo ngi dégg dim say taxawaay yëpp rek sëñ. moo Mbaye Thiam Baye Fall mi ñu koy jottali bu baax a baax yal na yàlla taxawu leen sàmm leen barki sëñ Tuubaa. waaw jërëjëf Sylla jërëjëf. yàlla la mbas mi jàmm xéwal am jërëjëf sëñ Maxtaar jërëjëf Sall. jërëjëf. jazakumullah xayran jërëjëf am nañ mbégte ñoo ngi ziare mbokk yi nekk London yëpp. jërëjëf sëñ Maxtaar jërëjëf. kon ñoo ngi sant baax Serigne Maxtaar moomu doon woote ci Angleterre ci London di wax rek gëm dogal nangu dogal loolu la ñuy waxtaane tey mbokk yi sëñ Maxtaar Serigne Maxtaar ah, waaw waaw kon ñu jégalu bu baax euh, Serigne Maxtaar salaamualeykum. jërëjëf sëriñ maxtar Sall mi doon woote ci London ci Angleterre ñoo ngi koy ziare di ziare mbokk yi nekk foofu yëpp ñoom sëñ Cheikh Fall mbokk yi nekk foofu yëpp bàyyiwuñ kenn ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ak taysiir noonu ñu ko doon waxee rek ci ndogal googu nga xam ne Sëriñ Tuuba moom tibb na ci loo xam ni kenn mësu koo tibb waaye yàlla fay na ko ci loo xam ni ti mësu koo fay kenn kon mbokk yi ko bëgg uh, kii rek mën ngaa woote ci rajo bi ñu jël la ànd ak mbégte lool ndax émission bi mooy seen émission soññee ak ziar ñoo ngi siyaare bu baax Baye Murit Thiam wax dëgg yàlla ak mbokk yi nga xam ne yëpp sëñ Modou Tall sëñ ba dara Wade ci Dubaay salaamaaleykum salaamaaleykum sëriñ Maxtaar waaw ñuy siyaare mbokk yépp rek niñ koy waxee bàyyiwuñ kenn sëñ Muhammadul sëñ Mahmadan moom sëñ Basiru Antañang ñoo ngi koy siyaare lu baree bare di siyaare sëriñ Fàllu Mbàkke ak soxnaam soxna Ndey Binta Dia ci impoli di siyaare bu baax sëriñ Mbàkke sëñ Dan Mare madame Mara sëriñ Jili Mbàkke moom tamit ñoo ngi koy ziare sëriñ Fàllu Mbàkke ci Treviso sëriñ xadi Mbàkke mu sëriñ Abbas ci France sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Mbàkke soxna ci Taïf moom tamit ñoo ngi koy ziare sëñ Matar bisimilah السلام عليكم sëñ Matar ñoo lay ziare sëñ Matar ñoo ngi ziare baax xam naa ñoo ngi jéglu bu baax sëñ Matar Sall mi doon woote ci Angleterre ñoo ngi koy ziare lu bare bari di ziare bu baax sëñ Amadou Niang sëriñ Ibrahima Ndiaye alxalil sëñ Dame Gueye Tréviso ñoo ngi koy ziare ak mbokk yi nga xam ne yëpp di mi ngi leen doon ziare ñun tim ñu ngi saf suñu ziare ci ab ziare moom sëñ Dame Gueye ak mbokk yi nekk foofu yëpp bàyyi wuñ kenn ñoo ngi ziare ni ñu ko waxee sëriñ Cheikh Mbacke nekk ci Amérique sëñ Abdul Ahad moom sëñ Basiru Anta Niang moom tim ñoo ngi koy ziare lu baree bari di ziare bu baax sëriñ Seexuna Mbàkke nekk fii ci Nawara ñu ngi koy ziare soxna Faati Mbàkke moom sëriñ Modou Boussa Dieng moom tim ñoo ngi koy ziare nekk ci Touba soxna Njaaya Mbàkke moom sëriñ Abo moom tim nekk ci Angleterre di soxna ci sëriñ Seex ñoo ngi ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi bi maa lay ziare mbokk mi tur beeg sant beeg fooy wootee. ngi lay ziare bu baax a baax a baax. ñoo ngi delloo ziar. benn jànkatu xasida la. askay alhamdulilah. waaw bu tudd Sidi Ndiaye. wala maam Cheikh Anta. ah waaw ah, xam naa kay sëñ Sidi sëñ Sidi Ndiaye bu baax a baax a baax ñoo lay ziare sëñ Sidi xanaa rek. lool lool mu koy yéeme na. waaw waaye yaa ngi suñu xel ak suñu xol. waaw ah yow kay bala ngaa bala ngaa kii dëgg bu baax rajo xasida moom. yaa moom yow yaa rajo bi. waaw. te fi di dañoo toll sax nag bëgg a dellu ci xasida yi bu wér-wér dellu ci Serigne Touba nag. dëgg la dëgg la. bisimilah sëñ Sidi ñu ngi lay ziare bu baax Ndiaye lay ziare bu baax naka coono yi. ñoo ngi sant bu baax ak Serigne Touba ñoo ngi sant yàlla baax. waaw xam naa ñu ko rek nuyu leen ko kon. bisimilah bisimilah ak mbégte lool. bisimilah. bismillahi irrahmani irrahim waaleykum assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fahaakum haasi l abyaata sifaan min kulli daain wa xisnan xasinan min makaidi jamici l yaa rabbi bil mustafa al muxtaari min mudari safiici ummatihi fi lbadwi walxadari yaa rabbi bil mustafa al muxtaari min mudari شفيع أمته في البدو والحضر عليه سل بتسليم بلا عدد في الآل والسحب واعزمنا من الضرر حطمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واعزمهم من الشرر واصرف لخيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسطو من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به wasrif lahum mujibatil amni wal bushari wajal quluba sawil islami fi amanin waltakfihim kullama yufdi ila alqarari wasalli daban bi taslimin bila adadin wasalli daban bi taslimin alayhi bi man lahum tamawal tajud bi safi wal durari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wasalaamun ala al mursalin walhamdulillahi alamin ñu ngi lay siyaar bu baax amin jazakumullah baax a baax a baax jazakumullah Serigne Sidi jërëjëf ñi ngi rafetlu émission bu baax alhamdulilah ñoo ngi lay ñaan nag ci uh-huh. barke xasida yi émission bu jot buñ sa yoon rek boo jot gi may rek nga dugg rek baax a ñu ci incha allahu waaye daal jàppal ne li ngeen di def mm-hmm. mu yëpp a ngi ci kontaan di ci bég alhamdulilahi rabbil alamin waaw li jot ci ay message di ko jot ci ay appel uh-huh. liggéey bi ak di rafetlu doxin wi ci sëriñ Touba. loolu moom defe naa ne kenn xamul nu mu toll. alhamdulilah yéen da ngeen di loolu di wax euh, loolu ñu tubaab di wax ñi nga xam ne seen seen waa seen seen kàllaama dina joti fu nekk. Mhm. bu dee nag kàllaama googu nag day wax loo xam ne ci mbindum sëriñ bi la jëm. ak ci mhm. doxali sëriñ bi. ak di wax mhm. ci taalibe yi loo xam ne leer na leen ne lii moom seen ak lay doon ak seen ak Mhm. man njortu naan loolu sax dana leen dimbali ba seen fan gën a gudd ngeen gën a yàgg fi gën a am xam-xam bu ngeen mën a baaxi nit jërëjëf Njaay jërëjëf Seex Sidi jërëjëf sëñ Sidi Njaay sëñ sëñ Baye Fall Thiam ñu ngi koy ñaanal moom it waaw jar na ko jar defal ko taw feex ndax lu ji ni njaag mooy njaag dëgg la dëgg la dëgg la ji bu buñu mënee toog nii jàkkaarloog yow wallahi dëgg la saafonte ci sunu jëmm yi dëgg la mu nekk ci technique bi di ci di ci di ci def liggéey bu rafet wax dëgg yàlla dëgg la bu ñuy ñaan ci yàlla télé yu mag yeeg ak rajo yi nga xam ne nii xaj na yooyu ñoom. am na mm-hmm. foo xam ne yegg nañ fa yàlla bi bi faw xa foofa. allahuma amiin amiin amiin ndax rek dana am ndax tur bi day wuyu day wuyu day wuyu mbir bi sax ndax. rajo xasida online lañ wax. amiin amiin wallahi dëgg ah. dëgg la. yow yow itam ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax. ci ci ak jotali gi. ak itam nag bi nga ciy def ak ni ngay maslaa ak nit ñi. dañuy ah yéen rek laa am lañ am da ngay dañ lay déglu ba xam ne li ngay wax yéeg-yéeg la ci sa xol nga ko tibbee macha allah. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin. barakallah incha allah. alhamdulilah ñaan yàlla sa xaa yàgg fi lool te ànd ak wér. amiin amiin jar naa ñaan jar ñaan nañ ko boole ci ñuy farata jar naa ñaan. waaw ah, waaw dëgg la kay. macha allah jërëjëf jërëjëf barakallah kon ba beneen yoon rek. jërëjëf sëriñ Sidi Ndiaye jërëjëf jërëjëf sëriñ Sidi Xasida xol yi sedd na yaakaar doo lekku na bu wér wér ñoo ngi lay ñaantim ñu bokk yow ah, liggéey bi ñuy bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa te bëgg cee sax ba faw te mooy rajo Xasida online suñ lépp daal jëmee nañ ko ci liggéey bi bu ngeen ñu déggee bu ñu déggut suñu xol ak suñu xel mi ngi ci yéen ñoo ngi leen di sant bu baax ñoo ngi sant mbokk yi nga xam ñu ngi ànd ak ñun ci Facebook bi ku mel ne sëriñ Gora Mbuub sëñ Soy bu Aan sëñ Ibrahima Seck sëñ Darou Baye Fall ak mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi bàyyi xel émission bi ak ñi nga ne ñu ngi koy siiwar ci Facebook bi ñoo ngi leen di ah baax li liggéey bi liggéey la boo xam ne nii liggéeyal Serigne Touba bu wér-wér yàlla nañ ci làq ngërëmam bu wér-wér ñoo ngi siyaare bu baax Serigne Moustapha Mbacke ci Milan moom tamit ñoo ngi koy siyaare ak Serigne Fallou Mbacke ci Brésil. Serigne Ba Baye Fall moom tamit ñoo ngi koy ziare di ziare Serigne Cheikh Lo ci Taïf Abacar Sadikh njaay bu Serigne Majbu di suñu jëwrin fii ci Novara Verbania moom tamit ñoo koy ziare di ziare Serigne Abdou Khadir Niang nekk fii ci Estreza soxna Ummi Seck moom tamit France ak soxna Lota Dia ci Tunisie ñoom ñëpp moom tamit ñoo koy ziare baax sëñ moom ci ñoo ngi koy ziare bu wér a di ziare baax a baax jagleel sëriñ Ibrahima Ndiaye alxalil cant ak ngërëm waaye ziar tim sëriñ Ibrahima Ndiaye bi nekk Genoa di ziare sëriñ Cheikh Mbacke Mbuub wax dëgg di suñu jëwrin di suñu lépp ci émission yu am solo yi waaye sant baax sëriñ Pape Demba bu baax ak sëriñ Maxtar Tall ak mbokk yépp ak Daaru Xasan Ablaye Diop mbokk yëpp rek bàyyiwuñ kenn ku lim sal ñoo ngi sant ñëpp daal ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw soxna Caara Galas moom tim daaray soxna Caara sëriñ Moutala tim ñoo ngi koy ziare al oustaz Nabi Gaaj ñoom ñëpp Sambay Sam ñoom tim ñoo ngi koy ziare sëriñ Fallou Cissé sëriñ Moustapha Kamal Jaxate sëriñ Ousmane Dieng ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziare mbokk yi ñoo ngi siyaar ñëpp rek ku bëgg a dugg rek ci seeño beeg siyaar rek incha allah ubbi nañ ligne bi tal ñëpp di wax ne émission bi moom mooy émission auditeurs yeeg auditrices yi ñoo ngi siyaare ñëpp di balu ñëpp ak di siyaare bu baax sëriñ Ousmane Dieng ci Sardeña sëñ Ibrahima Fall Mbay moom ti ñoo ngi koy siyaare sëñ Mamoun Ndaw moom ti ñoo ngi koy siyaare liñ ko waxee sëñ Abdou Ba sëñ gu Jóob moom tim ñoo ngi koy ziyaare bu baax waaye di ñaanal tim sëriñ naar nger xasida bu baax a baax yàlla yokk ay leeram xasida yi nga xam ne moom lañ ko doon dàkkantel te sëñ Sidi jàng ko fi léegi sëñ Sidi Njaay lépp yàlla na egg ci kawam moom tim ñoo ngi koy ziyaare ak sëñ Moodu Asan Njaay ak uh, auditeurs yi nga xam ne yépp yàlla dogal nañu jiitu ji te ñun tim na leen fekki yàlla na yàlla xaral àjjana ñépp sëriñ Ibrahima Fall Mbay moom tim ñoo ngi koy ziare sëriñ Maamu Ndaw moom tim ñoo ngi koy bu baax di ziare baax sëriñ Fallou Gueye ak sëriñ Fallou Wàddu ak soxna Say Jeng ñoom ñëpp soxna Loota Jeng ci Singooña moom tim ñoo ngi koy bu baax ak soxna Mati Mbaw ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziare sëriñ Allu Njaay Sanosi ñoo ngi koy ziare bu baax a baax sëriñ Mbàkke Mbuub nekk ci Parma di mag ci sëriñ Seex Mbàkke Mbuub sëriñ Seex Dangura moom tim nekk ci Parmate jamono yi mu nekk ci Touba moom tim ñoo ngi koy ziare sëñ Modou juuf Mbaza moom tim ñoo ngi koy ziare bu baax sëriñ Taala sëñ Modou Taal moom tim di suñu soppe di lépp moom tim ñoo ko woo bu baax a baax ci liggéey bi ñu bëgg a sëriñ bi sëñ Alioune Badara Wade ci Dubaay liggéey rek sëriñ Badara Mbay xasida moom tamit ñoo ngi koy ziare ci Koomo ziare sëriñ Modou Gadiaga Balla Fali ci Afrique di Sud sëriñ Xaadim Amar moom tamit ci Afrique di Sud ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziare bu baax sëriñ Ibrahima Fall ñoom ñëpp sëñ Modou Boussa sëriñ falu sëñ Modou Mbay ñëpp ay auditeurs lañ yoo xam ne ñi ngi ci Afrique du Sud dañuy bàyyi xel rajo bi rawatina émission bi di soññeeg ziare sëriñ Basirou caam ak sëñ Saliou Gueye ñoom ñu nekk fii ci Vélingara moom tamit Ousseynou Dieng moom tim ko daan bàyyi xel émission bi la yàlla dafa dogal mu wàcc liggéey ñoo bokkoon fuñ dëkk fii ñoo ngi koy ñaanal yàlla xaral ko àjjana yi firdawsi soxna Faal soxna Xadi Faal soxnaam moom tim ñoo ngi koy ñaanal ak njabootam gi nga xam ne ñoo fi des yàlla bàyyi leen fi ñoom ñëpp ay auditeur lañ yoo xam ne dañuy bàyyi xel émission bi di soññee ak ziyaare Serigne Aliou Touré ci Estreza fii ci bo euh, Gravelonato ci moom tamit ñoo ngi koy ziare ak Serigne Pape nekk ci Omegna ñoo ngi kiy ziare bu bari soxna Njaxat Fall ak sëñ Dame Gueye ci Treviso ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn ak sëñ Mandumbe Gueye sëñ Ibrahima Sey sëñ Moustapha Gueye ci Novara ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare ku nekk ci turam ak santam di ñaanal ñëpp sëñ Moustahine Thiam ak soxnaam ak euh, Serigne Dieng ci Lamesia moom tim ñoo ngi koy ziare di suñu doomu nijaay di ko xam tim kuy bàyyi xel émission bii di soññeeg ziare la sëriñ Moustapha Sey ak Serigne Ndiaga Fall ci Espagne ci Valencia ñu leen di ziare bu baax a baax bàyyiwuñ kenn kon mbokk yi seen émission soññeeg ziare ñoo ngi ziare ñëpp di balu àq bu baax a baax di jégalu nag ci mbokk yépp buñ sañoon tey ji mbokki auditeurs yeeg auditrices yëpp rek ku nekk la ñuy tudd turam waaye liñ naan lépp xaju fi waaye daal ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp rek kaw ba li nga xam ne moom lañ bëgg a liggéeyal yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ci émission bi yàlla defal ñu ci lu kawe suñ njort niñ ko waxe woon rek kon ci ndogal yooyu nga xam ne sëriñ Touba nangu woon na ko bu wër ci diggante boobu niñ ko yoonu géej gi waaye la ko yàlla fay dem da ci xam ne nangul dogal rek mooy li nga xam ne mooy lu wér te mooy nangu loolu waaye yàlla dem ku nangu rek fayla fay la fay day paase kawe jot muy waxustu sabxa koo xam day des waaye goo xam yàlla gën day des ba faw sëriñ di sant nee na moo tax nag mu am ak jiitu ñëpp waajahtu rabbiya bi zikrin wa shukuru waxaadali masara ni nema nee na jubla naa boroomam ci ay askar di ko tudd di sikk xam na ni bégloo na ko ba faaw kuy sant rek yàlla dolli la waajaxtu rabbi wa rabbi waajaha lii maxabtan lii hajaa nee na jëmale na boroomam boroomam ak kon li jëlee boppam ci suñu boroom suñu boroom dim jël na léppam jëmale ko ci sëriñ tubaa noonu la ko sëriñ tubaa mu ne waajahtu rabbal arsi bi ridwaani bila tanasuin wala udwaani sëriñ tubaa moom nee léppam bi mu nangoo dogal bi coono yeeg yëpp moo tax tim yàlla indi na ko loo xam ni du xeex du xuloo du xëccoo kon li nga xam ne mooy dogal gi moom lañ doon waxtaane tey ci émission soññeeg ziar defal suñ bopp rek li nga xam ci mbas mi na leen wóor na ñooñu ay shahid lañ ñooñu nag dañoo wax ne àjjana jëm direct sax waale sax mën leen koo suulaale ndax àjjana la jëm soxlaatuñ dara bi nga xamee ne sax dañuy wax wa arxabul ashyaa lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw suwayatan faqat li yaamalu saalihatan tanfaahum in xafalu ñu ne ñi faatu ñëpp bu ñu sañoon dañuy ñëwaat ci àdduna donte benn saala ngir def fi lu baax loo xam ne dañ leen jëriñ waaye wax na ñi nga xam ne dañoo faatu ci xare wala lu mel ni mbas yi ñooñu liñ leen ñoo ñu xam ne ay shahid lañ ñooñu bëggatuñoo ñëw àdduna ndax lañ am doy na leen àjjana la ñuy nekkee ba faw kon yàlla gis nga lu def rek loola moo gën nit ki dana metti ci moom waaye danga nga yaakaar lii gënut ci yow fekk loola moo gën ci fopp ci yow ndax lu baree baree baree bari eh, ci misaal ñu xam dogal rek ñun duñ xam waaye loolu daal gën ci ñun moo xam daa neex moo xam daa naqari misaal ki nga xamee ne dafa doon waaj a tukki bu njëkk mag ñi daan tukki fas wu baax ñu am daraja wala ñu am barki fas bu baax la ñuy defar lu yëg ci mën a tukki waaye bi mu loow fasam ba nga xam ne dafa gox sàngam ba waaj ba yëg ci fas wi rek ba laal dégalu fas fas bajant mu daanu loxo yi yépp dam loolu metti loolu mbokk yi dogalu yàlla ñëw na ci loolu ndekete dogal mu gën moom fopp ndekete moom fi mu war a jóge bëgg dem ci weneen gox mi ngi mel ne ku jóge woon Kajoor bëgg a dem Saalum wala Njàmbur walla Fuuta wala yu mel noonu waalo bi mu bëggee dem te far daanu ci far ba tax demul yaakaar moom ndax waroon na dem foofa ka fa nekk kilifa ga fa nekk ay saytaane jaxase na digganteeg moom ba waxtu ci moom loo xam ne nii lu doy waar ba kilifa googa waxoon ne diw mi ngi waaj bëgg a ñëw waaye bu egsee rek nañ ko daal di jàpp rey ko ci saase kon nga xam ne moo daloon boroom fas woowu ba tax mënta dem ndekete moo gën ci moom ndax ci diggante boobu nga xam ne ci la tànkam tam muy faju ci la dégg xabaar boobu ne ndekete moom buur ba nekk foofu wala kilifa ga nekk foofu ma ngi ko doon tëkku nga xam ne bu ñëwee rek dañ ko war a lay kon li Allah wax ne asa an tuhibbu shay'an wa huwa xayrun lakum na da bëgg dara te ndekete loola gënul ci waaye tim da bañ dara tim ndekete loola mooy li gën ci yéen waaye ab jaam du ko xam kon ndogal gi ni ko sëñ Ibrahima Xalil waxee bi mu duggee loola mooy rek lu ñëw rek nañ ko delloo ci suñ boroom waaye muñ ca ca tàng-tàng ba dañ delloo lépp ki suñ boroom xam ne lii lépp day jeex te xéewal dana am te jàmm tim dana am képp koo xam ne di dim yàlla dogal na sa bakkan dem ci am nga yow doo ci rëccu dara kon daal nañu muñ te góorlu te xam ne ki ñu am kenn amu ko ndax lim liggéey dafa rëy lool ba yàlla dàqal na ko lépp loo xam ne nii am noon la lépp loo xam ni saytaana la wahab liya waliya wali alin waliya nga xam ne lépp moom dafa yomb ci moom moom sëriñ tubaa wa asib shaytaana fi kulli bu ñu ragal dara jàmm dihi za in nizama Njaay xasida ñoo na xasida yi fi jóge jàmm am jàmm ak salaam ñoo ngi sann bu baax tim mi nga xam ne moo doon dugal di soññ nit ñi ci liggéey bi te mooy émission bi di soññi ak siyaare ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di ñaan ñëpp tawfiix ak taysiir bu baax di leen jox rendez-vous incha allahu taala àllarba bi ñëw bëgg ànd ak leen allahu taala waaye di ci ànd ak mbokk yi niñ ko daan defee rek noonu lañ koy defee incha allahu taala di ci dalal ay boroomi xam-xam di dalal tim képp koo xam ne nii rek ab auditeur nga ab auditrice nga rek am faal ci émission bi Sonic kon ñoo ngi sant baax sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall di sant bu baax sëriñ Ibrahima Ibrahima Ndiaye directeur programme bi waaye di sant bu baax mbokk yi nga xam ne tim ñoo doon bàyyi xel émission bi ci Sonic Ziar asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf fi amaanillah bismillahi arrahmani arrahimi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ma jug fas la yéene ñaan rabbul arsi rabbana ci mboolem sa tur yi siiw ci gox yi ci àddina allahu la nuy doore amul lenn donte yow mi lay sàkk loola xam ko moo warta jaaduna ay allahu yaa xafaaru jaam ñaa bokku tuub ci mboolem lu di bàkkaar nga jéggal nu rabbana ay yàllaahu yaa qaxaaru yaa jàpp lépp not dañuy ñaan nga not mbas mi ba jeexal ko rabbana ay yàllaahu yaa mujjibu jaam ñépp ñoolo ci barkeb sa tur jeexalal mbas mi rabbana ayallaahu yaa xawiyu yow buur bi kattanu rafaatanu ak kattan ñu daan mbas mi rabbana sa jaam ñeppaan ndëkkii te kum jaxle jàquluul te lompañ di sàkku yi ñaan nga jéggal nu rabbana damay soññ waa réew mi ñu jug farlu faw fekk tawat ji ñëw ak la jël dindi àddina